29 juin 2020 ñoo ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy doore ko tey mu mel ni ki yëglikaay bi nag tey ki mu xëy ñëw wan ñu ko ci xëtam mu njëkk moo di la roi des arènes Modou Lo la roc des Parcelles Assainies daal la boo xam ne defal nañ ñu ko ka ko def nag mooy ki nga xam ne nii moom moo di jàppal yëglekaay bi daal ñëw na ci Modou Lo ak taxawaay ca la nga xam ne moo di làmb ja Boubacar Niang moo fa jaar maanaam fukket yoo xam ne daal moom la ñëw jàpp ne Modou Lo daal fukket yooyu am na ci jàppal juróom-benn fukk juróom-benn victoire ñetti défaite ak benn match nul mu mel ni ki nag yëglikaay ba wala boog jàpp nañ na daal li naan machine boo xam ne daal buy gañe Modou Lo daal gañe dëgg-dëgg boo ko yor jàppal ki nga xam ne mooy waa des arènes maanaam tam ak mbër la boo xam ne daal mu ngi ci ay gloire am yu rëy rëy rëy ci fukki at yi moom Modou Xarañ Lo yëglikaay bi ñëw na ci moom jàpp na ne tamit ci 2019 ci la dégg li nga xam ne ni moo di roi des arènes gàddu couronne ba yóbbu ko parcelle waaye yi muy jotee jàppal Modou Lo tamit nekk na mbër boo xam ne compétition moom am na ko ba mu doy sëkk te itam nag ku régulier la ci wàllum daal la muy bëri bëri na lool ci biir carrière moom Modou Lo yëglikaay baa xëy day ñëw andil ñu ko ñeneen loo xam ne ni wala ñeneen ñoo xam ne nekkoon nañ fi di ay télé ba tey sax ñu ngi fi di wane ay image nit ñi leen seetaan waaye nag dañoo ñëwoon ci làmb ji daan dëgg ay journée mu mel ni ki nag yëglikaay bi nag ba ñu del toog ginnaaw ba tey daa mel tamit bokk li nga xam ne mu andi na crise ci làmb ji jàppal xanaa kay yéen a ngi fàttaliku WWR ak 2STV yëglikaay bi nag ñoom tamit ñëwoon nañ fi de jàppal ba ñëwee tamit andi woon fi ay combat bokkoon na ca ki nga xam ne nii moo di Gris Bordeaux ak Modou Lo te itam ñëwoon nañu jàppal ki nga xam ne moo di RDV tamit ñëwoon na fi moom tamit ba mu ñëwee tamit andi woon na fi cek wala ceeb Tafatine ca deux atum 2010 waaye tamit ñëw na nag ak tournoi boo xam ne TNT la ko tuddee woon ñoom Ama ñoom Gouye Gui ak ñoom Tafatine nekkoon ca ka nii moo di tamit ak GFM entertainment la ñëw nañu andi Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène ca atum 2015 mel ni nag ñii moom rëgg la ñu jël wala sax gisatuñu leen ci biir làmb ji ñuy tëgg mel ni kon loolu tamit crise la boo xam ne bu ñëw wala ci biir li nga xam ne mooy problème bi làmb ji am kenn koo xam ne ni moom donte dina amit problème moo xam muy gañe wala ñu koy gañe waaye loolu tamit dégg moom da ciy gar ba muy bàyyi ma ndox yëg li gar suñu lamb xëy tey ñoom ñu ko keneen boo xam ne tamit mois de mai moom daa mel ni aw weer lay doon ci moom muy papi général dafa tam bu njëkk yëg li gar bi ne le 2 mai la ko am ñaareel dafa tam ci làmb tamit mu am ko le 21 mai 2017 yëg li gar bi di suñu lamb xëy tey ñëw ñu ko nga xam ne moo di ka nga xam ne mooy public général keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi ñëw na ci moom muy idaal yi ñun di ab promoteur idaal nag moom nee na ñoom promoteur yi mu nekk nii xam nga kan moo leen war a dalal ñu ne ko idaal yi kan mu ne du kenn ku dul ki ki jiite réew mi nga xam ne moo fi a dalal du kenn war a dalal wax ak ñoom ndax ñoom itam de ci réew mi la ñu bokk te comme ku nekk nag yaa ngay laaj sa wàll ci nar wi ne na jot na ñu laaj seen wàll ci nar wi ñëpp itam idaal yi ñu moo xëy wax loolu borom ñu ngi production Alioune Mbaye Nder moom bu benn baraat ngoon moom moom itam de nee na leer na ko ne de Batista bu la kawaasam dànk donc la koy def yëg li kay ba ñëw wax nu ko dañ fay jóge dem fa nga xam ne moo di ca journal record record nag moom tey waxtaan bu yàgg nañu xëy seq ak Gris Bordeaux ka ko def moo di Abou Ndour Gris nag moom wax na ca na nga xam ne noonu la fa siy ne jeexale carrière am moom Gris Bordeaux na fi mu nekk nii day mu teg na benn mbir boo xam ne li mu bëgg daal jàppal benn affaire la boo xam ne coopérative lay doon boo xam ne daal jàpp na ne mbër daal ñoo ca war a dugg ngir na ne mbir ya teg na ko ba nga xam ne mu ngay lijjanti dossier te jàpp na ne mbir ya tamit mu ngi ci aw yoon boo xam ne am na ci yaakaar daal waaye tamit mbirum jiital CNG ba ak mbër yi nga xam ne tudd nañ leen te ngir na li am ba des daal du forcé rek mbër yi dañoo war a jiital lamb ji ngir na ne déedéet waaye kay nañ fexe ba ñoom ñu bokk ca ñi nga xam ne ñoo suyee boobu premier rôle yi bu fekkente ne beneen comité ñëwaat na tegu fi war a jiite li nga xam ne ni moo di làmb ji mataar ba tamit giri wax na ak moom ne ko bu yoon moom booy nome kuy jiite làmb ji na nga fexe ba waxtaan ci ñépp ñi nga xam ne ñi daal ñoo war a làmb ji ngir mbir ma bu dikkee mën a doon njëriñeen ñëpp giree wax ne na làmb tamit lu mu bëgg-bëgg la passion la daal giri yemu ca ne na tamit su bàyyee làmb la ñuy xam ne làmb passion dëgg-dëgg la ci moom ndax bu keroog dana ci gën a dugg gën caa def ay jéego moom Gris Bordeaux tey daal moo xëy ngar daajoo record wax fa ba xolam sedd keneen koo xam ne tamit ñëw na ca record wax fa maam les la di ab coach su nekk te parcelle moo moom nag ay affiches am la xëy tey di ko joxe jàpp na ne tafaatin ak ki nga xam ne moo di Eumeu Sène maam les na lees waxati waxati ku ne war ngaa xam ne boobu combat lamb da koo mënta daax te ñoom ñaar bëri la ñu a def ñu ne ko ak kan mu ne ki nga xam ne moo di Boy Niang ak ka nga xam ne moo di Gris Bordeaux maam les na combat boobu mooy wax ji ne na ñaar ñii tamit bëri lañ waaga ñu ne ko buy ñetteel ba mu ne ka nga xam ne mooy rakki Balla Gaye di Sa Thiès ak rakki Zoss di Garga maam les na ñii ñaar bëree dong lañ war a def waaye bu mu demee fa nga xam ne mooy ca record wala ñu dem fa nga xam ne mooy ca sunu làmb mel ni ki nag lig Nicolas ma nga xam ne dañ koo jàppoon dëj ko ca Ndar mel ni ki nag léegi indi ko fa nga xam ne moo di ca région maanaam région de Thiès lig daal démb lañ ko indi nga xam ne mooy région de kon daal li am ba des daal kon mu nga foofa léegi yëglikaay yi xëy ñëw ci am na koo xam ne nii moom la mu doon def ci corona bi neex na ba yegg ci loolu muy virus bu jàmm gën Youssou daal takk na jabar fan yi nu génn jàppal yëglikaay ba xëy wax ñu ko xale bu set wecc wecc wecc wecc la jekku daal di koy takk nag ba daal di nay daal commencé kon ay ligne de million mu mel ni kon daal la ma daan wax rek laay waxati célibataire ngir yàlla yal na leen yàlla dimbali ba ngeen am ay soxna yu jigéen ñi am ay borom kër ndax it nag sëy moom yàllaa ko digle te kat farata la yàggamaa yal na la ci yàlla boole ci ñiy takk ren ay na Diouf yal na nga am borom kër ba ndax du mën a ñàkk. salaamaaleykum mbokki Leewtoo TV ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ko di ànd ak yéen comme ni koy defee chaque jour seen revue de l'arène dina baax dafa defee revue de presse ba pare ci dugg ci li nga xam ne mooy jàngat baax ba dina. maa ngi lay fay ay sànq di la ñaanal jàmm di la nuyu depuis si rek si Leewtoo TV bi ndax ba mën a jaar. donc ñu tàmbali tey waxtaan bi ak suñu maam mu daal di indi kenn mu Modou Lo daal di ñëw ci dix dernières années yi nga xam ne ni Modou Lo def na ko ci lamb diggante ñi ñëwaat suñu ci bu leer nañ daal di jël li nga xam ne moom ci juróomi. waaw mu mel ni loolu daal léeg-léeg daal ñëw nag ci kat yu mujj yi nga xam ne am lu bëri lu ci wane waaw dégg nga tuddee ko sax euh, <laughs> vraiment machine à gagner waaw moom machine à gagner ah muy mbër mi nga xam ne wax dëgg yàlla moom Modou Lo defe naa ne itam dama naan royukaay la si làmb par rapport ak bu ñëwee si làmb 2006 ak tey fi mu yegg si boo xoolee dix dernière année am la six victoire trois défaite ak benn match bi mais na ba mu ne kon ko caaxaanewu ko te bi mu ci duggee tamit ak fi mu toll tey wane na ci fulla ak fayda ak gëm na ni daf ci war a mën a nekk quelqu'un ba yàlla dimbali na ko ci tey defe naa nekk na ci personnalité bu dem ba téye flambeau olympique nekk roi des arènes ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni mu ngi ci biir yaakaar naa kon tey moom la bu ma demoon ne daal euh, xam ne Dakar sa boo koy ma ñam wala ma ñam jeexal waaw waaw waaw kay dañuy des ba tey ci làmb yi dinaa bi ñu paree ci moo doon nag euh, suñu maam defal jàngat si li nga xam ne ni mooy crise bi nga xam euh, bi am ci làmb bi nee na nag télé yi tamit am nañ si benn part parce que gisoon nañ ay télé yu mel ni Zézé yu mel ni TFM yu mel ni ñun ñëpp amoon nañu suuf de doon tëgg mais léegi ñun waaw boo xoolee WWR ak 2STV yi tëggoon nañu loolu loolu ak kii boobu sama bu njëkk ba ñoom ñoo ko tëggoon yaa ngi dégg boo ñëwee tam fi nga xam ne ni moom mooy ci RDV dafa dim cek tëggoon nañ ko jógee ca def tournoi TNT xam nga ak yeneen ak ak ak ak yeneen tournoi bi tëgg nañ ko mm-hmm. yaa ngi dégg ñu ne dët na waaye TFM tamit ñëwoon na ak TFM entertainment indi ñu Balla Gaye de Eumeu te jamono yi gisoon nañu wax dëgg yàlla ñoom seen participation amoon na solo trop daan am daan wàññi ci semence mbir yi mais tey nag gis nañ ne ñoom ñëpp la kon loolu tamit bu crise parce que tamit tey kër yooyu muy TFM 2S RDS ay kër la ñoo xam ne nii ay télévision lañ mais dañuy def di nekk rek la nga mënoon ba tax ngay def loolu yàlla na yàlla mayaat kàttan boobu pour nga mën a ñëwaat jàpp suñu histoire nationale bi di keneen koo xam ne suñu làmb ñëw ci moom tamit daal dara muy ma nee na nag euh, touché mais jamais daal euh, am na ci moom lu la a lu mu mën dina ji difficulté difficulté ak mu dina am combat dina bëri loolu tamit soxla nañ ko dina compétir bu fekkee nag sport moom dafay jaar daanu di daanu xam nga des fois yu mel noonu nekk na mbër moo xam ne daal promoteurs yi bëgg nañ ko amateurs yi bëgg nañ lamb joo ko a tamit a ca war dina ko def ba mu mën sëkk ku mel ni passé gis nga lamb bi mu mujjee bëree gàmm yi te combat ba yëgul moom xoyantaan defe naa keroog estadu gàmm bi tey seen bëri na fa ak mu dem yàlla moo faram yeneen combat am na fa mais kenn estadu ba kaw ba mel c'est la première fois mu ko a xoyantaan kon moo lay wan ne ba tey moom mu ngi nekk ci lamb di wane ne ko ci la bopp te saa yu wàccee ñu xam ne ci la bopp. ñu ko wax nga yaatu yaatu ci ñi nga xam ne ay ambition la tamit ci carrière mais tamit ñu ngi nga xam loolu daal am na solo parce que gis nañ ko mu ñëw ci xel day dem ci kër mel ni ak yeneen ak yeneen yoo xam ne. mu ngi ci moom yoo xam ne am na ay ambition ngir def ko loolu nag moo lay wan nit ki tamit boo nekkee ci benn bër di ca yëngatu li war mooy bul xoolee sa intérêt bi sa ñoom day suuraale intérêt mbooloo bi yëpp le FNAC bii di taxawaay boobu ñu mën a gis ne moom la taxawee actuellement ñoom tamit ci côté lu mel ni diggante bi ministre bi ci lu ko ne buy mu boole ci ñëpp parce que day tax xëy na bu keroogee buñ ci jógee kenn daam lay wax tamit jàpp ne pour ñu jiite du force mm-hmm. mais l'essentiel que nañ fexe buñ jouer premier rôle yi yaa ngi dégg ci biir comité bu fiy nekkaat ñu ni kon daal ñun Gris Bordeaux yow na ci biir affaire bi toog mu jël place bi bu bàyyee di ko ki nga xam la koy joxe ay action ñu ne ki nga xam ne nii mooy Eumeu nga xam ne mooy Boy a am lu ne nga am am. ñaari ndam ñaar bu mos a wér te bu keroog da nga gis bëri dëgg dëgg dëgg bu dee ki nga a te saa yu amee la ngay gis ta tension bu muy àndal ak neexaay bu muy ak mbooloo mu jëriñ dëgg du ko gis gannaaw loolu ba naan sax xëy na yàllaa dugul mais comme heure bi kon moo lay wan ne boo ko tegal tam maanaam dana ko conseillé waaw waaw ñu dem ci GIE fi nga xam ne mooy nag li ñu ko rek ñu ngi def yi wax li nga xam ne ni mooy transfert bi jëlee ko fi nga xam ne ni mag bu Saint-Louis daal di fi nga xam ne mooy Thiès ci région mais nag avocat bi tamit xalaat ni mi ngi wax ni dinañ fexe nu ñu amee liberté de droit pour seen client. waaw loolu nañ ko Saint-Louis Sénégal indi wax dëgg lépp di Sénégal waaye bu ñu nee zone da koy gën a jege gën a jege euh, famille bi gën a jege ñu koy mën di seet si parce que Ndar bu ne xam na ne xaw na sore rek Dakar lool loolu nag li ciy ñaan mooy rek loolu avocat bi gud yàlla na ko réussir parce que li moom comme li ma wax ñun la bokk di nit ku baax te itam kuy jàpp ci développement Sénégal la yaakaar naa ne marqué na empreinte am si wàllum làmb tey ba kenn mënu ko ko effacer lu bëri lu ñuy jooy ci làmb des fois day ñëw taxaw faj ko kon yaakaar naa tey su nekkee ci jafe-jafe bu mel noonu ñun ñu bokk ak moom milieu bi bu ñu mën a def lenn lu ñaan yàlla yàlla teggal ko boobu diis moom képp ku ne ci kaso bi te mérito di ñaanal laaj yàlla wéral leen mel ni loolu moom day euh, ay na a teg di jaajëfal la ñëpp ñaanal jàmm la fa ñu leen ñaanal yàlla musal la mucc la ci jàngoro bi nga xam ne ñu koy mu lëmbee àddina ñu ñaanal jàmm ak taw bi bu bëree bëri amin yal na yàlla nangu waaye Firuz tam ñu koy wax ah. ko soxla ah parce que moom it. ndax moo tax ma ne nañu yàlla yàlla parce que tamit il est leer ah. muy bër boo xam ne nii moom bawal bawal la ñu bëri dañu xaw sa jaw jàmm gën lañu nag waaw bawal la. waaye mm-hmm. ah, nag jàmm gën mooy baasam kon ñu koy wax sëy yàlla ci yàlla ay barke. te képp xam ne dugg nga ci sëy ñu ko amagul tamit yàlla na ko yàlla may. xam nga parce que loolu rek lañu mën a ñaanal célibataire yàlla bu góor beeg bu jigéen bi ku ci ne yàlla booy laaj ku ñu yaakaar ne moo gën ci yow nga am ci njaboot bu am barke parce que sëy moom farata la encore une fois yàlla moo ko santaan ay a nekk rek a bi sama xarit nekk te états xam ne xam nga di nuyu képp mu mën a doon ay sa di nuyu sa borom kër sa ñaar di nuyu yaayam soxna quoi kon sama sama bàjjen bu tudd Soora quoi sama bu tudd Soora kon mère Soora maa ngi lay merci di nuyu tamit sa rakk xaw ma mag la Nogoy ca Italie ak Amar Gueye borom kër di ñaan ñëpp itam di nuyu waa Italie fu waay maa ngi rek ay so yàlla fi yàlla fi jàmm